الحمد لله الواحد الأحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ أحضر لنا بهذا المحضر والتعاطف بنظرة لنا بسفر مبكوي تي الله مبكوي تي إسلام مبكوي تي إيمان مبكوي تي إحسان mbokk مبكوي تي إحسان إحسان teen mbokk yi ci di len ndokkeel bu baax ci wéru mag wi nga xamné ne muy teru muy wéru koor muy wéru ngëneel ak wéru parke weer yi nga xamné ne mo ngi ko jox nit ñi jullit ñi pour ñi def ci passage te dëgg-dëgg ku ci réussir rek da ngay am liko yalla wax laallakum tattaqun ñaan yalla yalla may ñu tawfiq ak taysir ban mañ ko joxe ni ko sallallahu alayhi wasallam waxon man saama ramadaana imanan wa ihtisaban képp ku woo weeru koo ci ànd ak gëm yàlla waaye ànd ak fuglu yàlla nañu yàlla may bañ mën ko fuglu ci nawaafil yi ci sax xiis jàngal quran loolu moo tax seen site bii di ras Info ngir dab seen bànneex indil leen seen yóbbalu bés bi muy bés bu ne mu jukki leen lenn ci téere bii di laxdar yi axdar yi nag niñ ko waxee téere la ba nga xam ne seex Seyd Abdourahman moo ko taalif mu taalif ko tamit ci ngir ak imam Malik radiallahu anhu Euh, ñu ubbee nag ci bunt bi nga xam ne mooy muqaddima bi balaa loolu rek ñu ngi fàttali mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp bés bu ne seeni laaj ak seeni dolle ak seen lépp lu ngeen gis ne war na mën a taaral wala mu yokk ci émission bi rek ñu ngi leen ci déglu di leen ci xaar liñ koy tujjee mooy li yàlla tujjee téere mooy bismillahi rahmaani rahim ñu tàmbalee ci turu yàlla mi nga xam ne mooy borom yërmaane bu màgg mi moo yërëm waa asamaan te moo yërëm tamit waa suuf te moo yërëm tamit ñu si jaww ji mi ne wa sallallahu maa ngi yal na yàlla julli ala sayidina cun sang muhammad te mooy muhammad wa alihi ak ay ñooñam wa sahbi ak ay sahabaam tam gërëm ko wala tam musal ko mi alhamdu sant lillahi ñeel na yàlla rabbil alamina ke borom mbindeef yëpp mi ne wasalaatu julli wasalaamu ak sëlmal ala sayidina ci ki nga xam ne mooy can sang te mooy muhammad te mooy muhammad xaatimi nabiyina pooy nga xam ne moo kaste yonent yi wa imaamil muslimin te mooy imaamu ñi nga xam ne dañu leen ñaari la yu xam ne dañoo bokk am luñ bokk am luñ wute képp ki nga xam ne mursal nga rek nabi nga waaye nekkul képp ku nekk nabi mursal la nabi mooy nga xam ne yàlla da koo solo waaye waxu ko muy jox jotal ko am ki nga xam ne musannaf nga xam ne yàlla da ko solo ba pare wax ko mu jotal yonent bi sallallahu alayhi wa ñëpp mooy seen imaam te moo leen tëj mu ne awwalu njëlbeenu maa yajibu li waat alal mukallafi ci mukallaf tasxiixu mooy mu rafetal mu wéral imaanu yi ngëm yàllaam li njëkk a wat ci mukallaf mooy mu wéral ngëm yàllaam summa topp maarifatu mu xam maa la nga xam ne yuslih ci yeewan bi ci loo moom moomu nga xam ne mukallaf bi fardu aynihi faratay boppam farata dafa am lu ñu tuddee fardu ayni ak fardu kifaaya fardu ayni mooy far yam daf la war yow sa bopp mu ngi koy lim fi mu nekk salaati niki ponk julli wa tahaarati ak laab wasa wa ak laab wa siyaami ak koor gi ñu ne am lu ñu tuddee fardu kifaaya nag lu ci mel ni julli ak néew loolu bu ko ñenn taxawee rek wàcc na ñeneen ñi mi ne kon fardu ayni nag julli laab ak koor yeneen yi mel ni moom wajibu dana war alay ci moom mukallaf bi an yu xaafisa mu wattu ala xududillahi ci daytali yàlla yi li yàlla tracé ne em lañ fa nañ fa war a em julli bu ne war na ko wëttu yàlla bu ne bàyyi leen naan sangara bàyyi leen njaalo bàyyi leen jëw bàyyi leen wax seen yoon nekkul dee leen julli waxtu juróom dee leen woor dee leen loolu la yàlla digle nañ ci ne fa mu wax ñeem fa nañ fi am loo bugg woor woor woor woor bi ne farata mooy weeru koor yeneen yëpp sunna la wala loo nisaral sa bopp mi ne wa mu taxaw inda amrillaahi ci ndigalal yàlla yi li yàlla digal daal taxaw ci langa nga man wa nahyi li yàlla tere baxal wa yatuuba mu tuuba ilallaahi jëm ci yàlla subhaanahu tudd naa sellam xabla lu ji lu jiitu nag an yasqata ba muy am ngërëm sa merab alay ci moom ci yàlla bala muy am merab yàlla mere yàlla mooy yàlla bu ku meree mooy comme suñu yërmandeem rek yàlla yërmande la am amul leneen képp ku bugg bëgg yërmande yàlla yàlla bala moo tax ñu wax xadis képp ku bëgg a yàlla yàlla dajeeg yow ku bëggul dajeeg yàlla yàlla tamit sib na dajeeg yow te yàlla kum dajalul rek xam ki nga mooy seytaane parce que ñaar moo fi nekk dëgg ak neen boo newul ci dëgg rek yaa ngi ci neen kon waatu na ci dulil muy tuub daa iman balaa muy dem ba seytaane nekk waayam ànd ak moom te boobaa su lay jëm mi ne wasudur tawba nag sax tay tuub anadamu rëccu mooy rëccu alaama faat la nga xam ne paase na wa niyetu yéene allah yaawur doo dellu ila zan bi ci bakkaar yi fii ma fii ma la nga xam ne baqiya des na min umri ci dund tuub daal dëgg-dëgg sarta mooy nga yéene rëccu lépp li nga xam ne faata woon nga yéene doo ci delluwaat les sa dund gi maanaam doo defati bakkaar yi les sa dundu gi yëpp mi ne wan yattu nga bàyyi tamit almasiyata mooy yàlla fii saata ci waxtoom la nga doon def muy mooy yàlla la nga xam ne lii mooy yàlla man de dama doon doyral weer koor man de daaw ma doon julli ji man de daanaa doon naan sàngara man daan ànd ak mbooloo ñu jël alu jaamu lii yëpp xam naa ne baaxul bana ko mooy da koy bax boo tuubee da koy bax ci saasi loolu mooy tuub fi saatiha in kaana dem nekkoon nga muta labbisandi taqoo biha ci moom mi ne wala yaxillu dagan lahu moom mukallaf bi an yu aqira mu yéex a tawba da tuub wala yaqu la du wax xataa ba ba yahdiyane ba mu jubal allahu yàlla julli du toogee naan yal na ma yàlla jubal déedéet yàlla may na la xel may la xalaat def nga nekk mukallaf lii la koy jàngal mooy dañuy teg ay xeetu ndox bii di essence bii di ndox boo ñëwee naan xam nga yëpp ndox la waaye ndox mi nga xam ne mooy naan mooy ndox mi nga xam ne moom la ñuy naan waaye du naan essence bi kon yàlla ni nu mayee xel nga a ràññee loolu noonu la mayee xel nga xam li baax ak li bon kon bu wax mukk yàlla na ma yàlla jubal lu tax mu ne fa innahu naka jëf jooju wala wax jooju nga koy wax naan yàlla ma yàlla jubal ah mbir mi daal damay toogee bu yàlla jëndee ma jub dinaa jub déedéet min alaamati chiqaay bokk na ci mandarga yi kii war a texee di wal xasdaani ak ki nga xam ne dafay gàccengal boppam wa tamsil basirati ak ki xam ne dafa gàtt gis-gis nit ku gàtt gis-gis daal wala ku war a daal wala ku am gàcc dëgg mooy wax loolu kon mbokk